asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ginnaaw bi ñu jiitalee ci siyaar bi Cheikh mun Mountakha yàlla na fi yàgg tànd ak wér ci eh, siyaar al imaam sëñ Afi bu sa imaam tey jii ñoo ngi fii ci kanamu kër sëñ Afia ànd ak eh, lenn ci bokk yi bàyyi ko ci France fédération Ouest fekk fi tam kenn ci jëwriñu daayira bi muy sëñ soo Bousso Thierno moom sëñ bu Bousso kenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñooy ànd itam ci bitti réew ci di yaatal liggéeyu daayira bi euh, te ci teewaay itam sëñ Modou Fall Kébé mi nga xam mooy jëwriñu euh, kër sëñ Touba gi ci Paris ci Only euh, ak sëñ Sidi Diop mi nga xam ne moo fi teewal waa daayira La Roussillon bu France ci dëkk boobu nga xam nekkoon naa fa ak sëñ Ibrahima Diop. mais di suñu xalifa moom it moom di rakk ci sëñ Modou bi Diop ak sañ Cheikh Diouf mi nga xam ne tam ku ko xam-xam ko jàmbaaram ak taxawaayam ci liggéey sëriñ Touba rawatina ci France ci Touba ci kanam ak ci bépp liggéey ak ci ñooñ alxuraan ndax fi mu toll nii moom mii jiite na mbooloo mu bari moo xam ñuy tari alxuraan lay jëm ci ñoom moom mi bokk na ci ña koy taxaw tey jii noonu la àndeek Muxaddamaatul Xidma nag ci yaatal liggéey bi tey ji nag ñu ñëwoon doon jébbale adde ji nga xam ne moo bàyyi ko ci fédération West fédération West bi nag bu ñu koy waxee ay daayira yu boole seen bopp la sëñ Assane kebe di jëwriñ ji euh, dëkk ba nga xam ne nag man fa laa nekkoon muy La Roussillon sëñ Mamadou Lamine Amar mooy jëwriñu sëñ Touba ja moom itam bi ñu àndee ci fédération bi moom laa wax ne sëñ Assane Kébé jëwriñu liggéey bi kon nañ ko jox sëñ Mamadou Lamine Amar moom muy yor kaddu daayira Muxaddamaatu Xidma ndax moom mu yóbbuwoon ci ñoom. yàlla dogal na nag tey ànd nañ fii jébbale nañ àddee ji lu toll ci 600000 yoo xam moo bàyyi ko ci fédération boobu ci biir France yëpp mën naa ne liggéeyu màggal gi ren moom fédération Ouest bi ñoo ko def 600000 yooyu tam ni mu demee fédération bi ñoo yëkkati 200000 yi ci turu fédération bi jébbale ko 400000 yi marché ba ma newoon ca dëkk ba maa doon def waxtu bu ma lalee ba midi ma jóg. ñi nga xam ñoom laay dajal ci bërëbu liggéeykaay ba kenn ku ne lamb ci sa jiba loo mën a coobare woo loolee lañ dajale ba mu toll ci 400000 moom lañ indi nii boole ko loolu muy 600000 kon nag euh, ma gàttal kàddu yi rek su ko defee ñu jox ko sañ Cheikh Diouf mu yëkkati ay kàddu bu noppee sëñ euh, Kébé luñ ci dolli ñu dolli ko sëñ sëñ bi doog kii waa. auzu billah bismillah inna waliyyina wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëñ bi noo ngi lay nuyu ci tuuru dongo yi nekk France di la siyaare bu baax ci màggal gi di la jaajëfal it ci taxawaay yi ak yitte yi di ñaan sun borom mu guddal soo fon lool te wéral te say jot nu nuyoo beeg siyaare bi mboolem waa France yëpp sëñ Muntaxa te ñaanalal nu ko suñu borom yàggal ko fi lool mu sax fi ba nekk kéemaan ci mbindeef yi eh, noonu la ñuy sante mboolem waa daayira Muxaddamatul Xidma ci seen taxawaay yi nga xam ne yu matale la la yoo xam ne nun ñëpp lañ ko defal ndax nun ñëpp la war kenn ku nekk ci nun taxawaay yooyu war na ci nun kon buñ nu ko taxawoo noo ngi leen di sant bu baax tey sàkku ci ñoom ñaan ba euh, suñ borom dimbal nu kàttanal nu ban mën leen a taxawu ci fépp ci boor yëpp ba lépp lu waaye di di di di jëfandikoo ci àdduna rek mu mu leen a fekk fañ nekk duñ ko wute fenn te mu jóge ci nun noonu nag kon la ñuy soññee euh, di sant di gërëm euh, sëñ Assane sëñ Assane Diop ñoo ngi koy ñoo ngi seereel ne taxawaayam eh, kawe na lool rëy na lool maanaam jamono bu ne jox na yitte liggéey bi guddeeg bëccëg du du du du doon fu sorim wala fu gàtt wala lu mu amu ci fi seen fu mu ne bu fa demee rek liggéey bi dana nit ñi danañ ci jot ma ci kon loolu noo ngi koy seede nun ñu nekk moom te gis yitte yim ci yim ko jox kon noo ngi koy sàkku sàkkul ñaam sa guddal fanam lool te wéral ci rëy te doole ay xéewalam it te barkeel ko euh, kon nag di soññiwaat suñu bopp di soññiwaat waa France yëpp euh, day mel ne euh, yitte liggéey bi. jar na jugaat jaajuwaat mu mel ne France ñi ngi ciy dox ndax su fekkee waa Toulouse ñi ngi jàpp ci liggéeyu forage bi parce que yéene taxawu kon mel ne France ñi ngi ciy def dara mu mel ne waa west west bi itam li fi ñëw ñoom ñoo ko fi indi kon mel na ñoom it ña ngi ciy jàpp kon noonu la ñuy soññee fédération yi des nga xam ne Euh, ñoom it kenn ku ne bu jàppee ci benn barab moom loolu dana feeñ feeñ ci liggéey bi kon ñoo ngi leen di soññi ci li nga xam ne euh, mooy yitte yi ñu fi indi ren ci fédération yi nekk France yëpp euh, kenn ku ci ne jël ci benn mbir def ca dara mbaa mu def lépp te bokk na ci ambulance bi ñu doon wax ak mm, oto ndox ye hmm, ak añi juma yi ak yëpp yi nga xam ne maanaam xam naa sëñ Assane dana ko gën a leeral yi li yittey euh, daayira bi ci at mi su ko defee ñoo ngi soññi ñëpp kenn ku ci na jàpp ci euh, ci ak noo ci mën a jàppe xam naa euh, dana jar fédération yi def ci ay ay ay waxtaan xool kenn kenn ku ci noo ci mën a jàppe ba yitte yooyu moom it saafara woon ni yeneen yitte yi saafara woon yi yi yi yi fi waxoon daaw te yëpp mu mel ne saafara woon yàlla noo ngi sàkku ñoom ñi yëpp ñu bokk ci ci ñi ñi koy def ren jii kon noo ngi euh, gàttal foofu di ñaan suñu borom mu boole nu taxawu nun ñëpp ba nun nin ci yéenee ak nin ci bëggee nu mën koo jëmmal muy luy muy jëf te bañ a nekk waxi kese ndax euh, jëf moom mooy mooy mooy sottal waaye wax dong du sottal yéene it baax na lool waaye jëf moom mooy tax yëf yi mat kon noo ngi ñaan sunu borom mu kàttanal lu barke borom Tuubaa. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki bi yi ñu leen di ziare bu wér di balwaax itam bu baax. ñu ñaan rek suñu borom mu yàggal ci sëriñ Muntaxa te kàttanal ko bu baax ba naal yi nga xamante ni ne naal na ko yëpp mu àggale ko ci jàmm ak salaam ba naalaat yeneen naal yu bari te ñu ànd ko moom i ñaanal itam ci nga xamante ni mooy sëriñ am bi moo di mbenn itam faal moom itam suñu borom yàggal ko fi waaye mboolem kilifa diine yi itam ñu leen di ñaanal bu baax itam di ñaanal itam suñu kilifa gi nga xamante ni moom lañ fi fekk itam di sëriñ Afia Bousso moom itam yàlla suñu borom gën koo kàttanal ba li mu yenu itam suñu borom oyofalal ko ko bu baax. xam na nag li ñuy njëkkee rek mooy baluwaat àq bu baax ndax mu mel ni ay ndaje yu bari yoo xamante ni bi na xaj na euh, teewewuñu ko waaye loolu itam defe naa xaj na ku mel ni sëñ Cheikh. Diop mii ak euh, sëñ Assane sëñ Cheikh juuf ak sëñ Assane euh, am na xaj na luñ ci xam ndax yenn saa yi nga am ay gàllankoor yoo xam ni itam day doon farata rek moo gàllankoor beneen farata waaye ñu ciy sant bu baax nag ci maanaam taxawaay bi ndax su fekkoon ne dañoo am gàllankoor te amut ñoo xam ne tey ñu ngi taxawu liggéey bi. kon day gën a maanaam sooxe waaye ginaaw yàlla suñu borom dimbali nañ ba nga xamante ni bi na teq-teq yi ñu amoon itam waaye am na ñoo xam ne ñi ngi ci wuutu te lépp luñ fa waroon a wax ñu war ko faa def itam ñoom ñu ngi ko ciy def kon dañuy leen di santaat bu baax ci loolu. mu mel ni nag xam naa liggéey bi moom xaj na ci gis-gis mën nañu wax ni xaj na am na ci lu bari loo xamante bi na des na waaye itam. li ci jara sant yàlla rek mooy ay mbokki jullit moom mbokki taalibe suñu àndee donte am na lu des ci liggéey bi itam waaye fekk na xol yi ànd rek loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën a jara sant yàlla ndax euh, mbooloo bi moom lu mu bari bari bari te xol yi àndul itam bu boobaa itam ñaari liggéey bi dox day xaw a jafeñ waaye kon ginnaaw xol yi ànd na gis-gis yi ànd na maanaam bëgg-bëgg yi jëmuwaay yi lépp kon dañuy ñaan rek suñu borom mu dolli ñoo kàttana bu baax a waaye ñun nag xam naa ñu xaw a leeral tuuti rek li nga xam ne moo ñu xawoon a gàllankoor te comme ni ma wax rek euh, sëñ Cheikh Diouf mi moom am na lu mu ci xam lu bari ak euh, Baye Assane mi muy euh, liggéey bi nga xamante ni benn mooy fële ci Aulnay kër ga moom laata muy am sax maanaam laata sëñ Mourtada daanaka suñ borom dolli ay leer ak yërmande ki njëgal te taas ñu ci barkeem laata muy. tàmbali maanaam yaatal boobu mu doon yaatal bitim réew ba kër googu ci France nekk kër gi nga xamante ne moo njëkk ci àddina bi fekkoon nañu maanaam ci liggéey bi waaye nag yàlla dafa def itam xaj na mosuñoo jóg ci liggéey bi dafa def ci ñaari at yi nag ci lañ ñu maanaam jiitale ci liggéey bi waaw ñu fekk ko nag mu xawoon a am comme niñ koy waxee rek sooxe gu xawoon na metti waaye du woon loo xam ne maanaam nit ñi seen bopp maanaam ab euh, Euh, ay euh, maanaam jafe-jafe la woon ci seen diggante wala yu dara yu demee noonu xëy na ñàkkoon a toog waxtaan rek moo ci moo taxoon yu bari euh, maanaam xawoon a taxaw moo tax na ñaari at yi nag ci loolu lañ nekkoon doon ci dox ngir jéem a dajalewaat maanaam mbooloo mi ci waxtaan ak gindukante ak maanaam kenn ku nekk ñu xam maanaam lan moo ci sa taxawaay ñu fexe la koo jox loolu nag yàlla euh, suñu borom ci boppam dimbali nañu ci ba nga xam ni mën nañ ni mbooloo mi yëpp su dul pour cent itam mën nañ ni 95 pour cent yi moom alhamdulilah fi ñu toll nii ñëpp gën a nañu. ba maanaam tënku ci wenn maanaam doxalin euh, liggéeyal sëriñ bi rek ndax xam nañ ne loolu moom mooy jàmm yàlla goo xamante ne nag bu matal la. Euh, loolu nag bokkoon na ci li nga xamante ne maanaam moom moo ñu gënoon a gàllankoor ci lu bëri Eh, fekk ñu amoon itam benn projet bi nga xamante ne mooy complexe international muy kër gu mag gi nga xam ne moom la ñu bëgg a defal maanaam Serigne Touba ndax maanaam mooy li nga xamante ne jàpp nañ ni lii lu yellu la ñu def ko ndax mu nekk ndamul lislaam ndax sëriñ bi kenn ko xam na ne maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne moom la amoon ak tubaab yi ñoom ñoo ko tubaab yi ñoo ko indiloon. kon complexe bu toll noonu boo xamante ne bii maanaam àddina bépp boo ko doon war doo ko fa gis ah, bu fekkente bi ne fexe nañ ba mu am foofu defe naa loolu dina bokk ci loo xamante bi ne duy gën a doxal liggéey bi kon ci tënk rek ñu bañ a dugg ci yeneen yu bari rek ndax day gudd ba mu ëpp waaye ñuy sant bu baax rek di jégalu bu baax xam naa bu ñu yàlla dimbalee ba nga xamante bi ne dellu nañu xaj na fii ñaari weer ci kàttanu suñu borom jàpp nañ ni dinañ xaw a gën a féex kenn ku ne xam na ne liggéeyu lislaam moom du mas a jeex waaye li nga xamante ni bi na moo ci gënoon a euh, euh, gàllankoor maanaam li ñu gënoon a téye Euh, yu ci bari maanaam wàññeeku na euh, ndax fi ñu toll nii euh, màggal gi nga xam ne dañ koy def foofu ci France yàlla def na màggal gi jàll na gàmmo gi moom la ñuy waajal bu jàllee sëñ Mam Mor dafa war a ñëw le 22 octobre bii ñu jëm ci kàttanu suñu borom bu loolu weesoo nag maanaam ak woyefte day am ci lu bari bu ko defee nag ku mel ni Baye Assane mi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci France defe naa nag bu boobaa day jar ñu fexee dajaloo nag. maanaam bañ a yem ci téléphone bi jéem a fexe wut bis boo xamante bi ne rek day jar kenn ku nekk bu fekkonte ne bi ne sax dañuy jël train wala dañuy jël avion wala lu matti doon ñu xool fu gën a diggu doomu ci France ñu tase fa def ko benn bis boo xamante ni bi ne maanaam dañ ciy waxtaan ndax loolu muy ëppal jëmm ndax téléphone yi ndax téléphone yi moom boo waxee ba pare rek daanaka boo kuppee nit ki balaa pare am na keneen ku nekk ci ligne bi wax ak moom balaa pare message yaa ngi ci nangam ak nangam da nga daal di fàtte waaye nag bu dee bis la boo xam ne dañ koo jëmmal nga xam ne sax maanaam mën nañoo def ni at mu jot sax wala bu dul at mu jot ñaari at yu jot yu nekk ñu fexe ba tase ngir maanaam liggéey bi euh, defe naa dina tax euh, ñu gën cee bàyyi xel ba nga xamante ni bi na euh, tey képp koo xam ne dafa jiite maanaam ab daayira lu demee ni surtout France ñun daayira bi nga xamante ni moom la ñu jiite nga xam ne moo ëmb France gépp ak yi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen dëkk yi muy ay Marseille ak Bordeaux fu nekk kenn ku ci nekk bu ñu fexee maanaam ba nga ñëw ñu euh, xamal ne la kat maanaam fii nga dëkk moom liggéey bi ci say loxo lañ ko teg maanaam responsabiliser ko ci loolu defe naa kooku bu delloo ak mbokki taalibe yi dina def maanaam la nga xamante ni moo ci war ndax tey jii jàpp euh, naa ne bu fekkente ni ne loolu am na yàlla mën nañoo dimbali ba nga xamante ni na bu ñu ñëwatee fii di jébbalee maanaam liggéey bi dina amuk wuute kon xam naa ci gàttal ñuy jéggaluwaat bu baax a baax rek ci gudd gi waaye bëggoon mu leer rek moo tax jërë ngeen jëfati yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi man Seydil Muxtaar Jóob borom kokki maa leen di di leen siyaare di leen balwaaq di leen balaaq di jottali ab nuyoo waa daayira La Roussillon bi ma dëkk dëkk bi ma dëkk di leen xamal ne ñun ay taalibe lan lépp loo xam ne nii la jëm ci sëñ bi rek ñu nga ca biir ah, li ko gën a feeñal nag moo ñu sant yàlla di sant sëñ Assane mii ndax sëñ Assane mii de maanaam jël na nañu jëme nu koo xam ne fa lañ bëggoon a jëm te fa jëmoo jëmoon it nag waaye nag dolli na ko ba tax na cant gi nga xam ne moom la ni sant sëñ Assane moom am na fu mu tàmbali waaye amut fu mu yem ndax fii tey nii maa fi toogal waa daayira La Rosilio waaw ndax sëñ euh, sëñ Amar mooy jëwriñ ci jëwriñi daayira ba waaye lépp lu ñuy def sama kër lañ koy defe waaw ci sama kër ca ca La Rosilio loolu moo tax maanaam te sama njaboot gi yëpp wax dëgg yàlla la ci leen bokk ci ñu jiite daayira bi leen bokk man nag. sama toog moo bëriwut ndax li may ëpp doole damay ñëw Sénégal depuis bu ma retraité ak léegi waaye maanaam ci daayira ba laa bokk. yokk ba yëg ko rek yokk ba yëg ko yokk suñuy doole ak suñuy loxo ak suñu xel ba yëg ko te góor góorgóor dolli ko góor góorgóor ndax taalibe bi moom du wàcc waaw taalibe bi moom du wàcc damaa bëgg at mu jot lu nu def rek ñu xeeb ko yokk. loolu laa bëgg mooy li nga xam ne moom laa bëgg ndax gis naa fi koy dugal xam nga li ñuy jël te di ko dugal fan koy dugal te xam fan koy dugal loolu moom leer nañ naññe te nit góorgóorloo nun waa daayira la gestion ba jébbale fi loo xam ne dayre yu bari jébbale ko fi loolu laa bëgg nag mu dolli ko yéen waa la gestion dama bëgg ngeen di dolli ko bu baax a baax a baax a baax ba feeñ ci feng feng fang fang fang loolu mooy sama yitte jërë ngeen jëf wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñun mbokki taalib yi ma fekk maa ngi leen di siyaare bu baax di jiital ci siyaar bi sëriñ Afe imaam mi nga xam ne moom la ñëw ci kanamam tey muy njiitul daayiratul muxaddamatul xidma di ko siyaar bu baax di sant yàlla ci jataay bii ñu fi amalaat di ñaan yàlla ñu yàgg fee amal niñ ko fi amee doon daaw ak daaw jekk di nuyu sama bokki taalibe bi ma fekk muy sëñu Assane jëwriñ nga xam ne moom dama ne ko yow foo teew rek daanaka ab soññee la ndax ñëpp xam nañ ko ci liggéey bi moom daanaka ku ciy waxit dangay fàttali rek di fàttali sa bopp waaye moom koo gisee xam ne liggéey baa ngi dox lépp luñ ko ci luñ ko ci joxit ku ne xam na ne ñëw na fa mu war a ñëw def nañ ko fañ ko war a def loolu ñëpp xam nañ ko di siyaare bu baax it sunu jëwriñ sëñ Modou Fall Kébé nga xam ne France rawatina Paris kër sëñ Touba ga nga xam ne moo fa mag jiitu fa taalibe yi yëpp tënku ci moom moo ko jiite kon moom it bu teewee rek day waa ne waa France gépp teew nañ sëñ Cheikh Diouf mi itam kazaalika moom itam ñëpp xam nañ ko France ci liggéey sëriñ bi ak mboole mbokki bi yi fi teew ak ñi bëgg a teew ñi ñi fi waroon teew ci teewuñ kon day wane na rek maanaa France gi ñëpp ñëw nañ ndax buñ gisee seen jëwriñ rek ñoom ña ko doyloo ba tànn ko buñ ko ko gisee ci kanam liggéey bi rek dañ xam ne ah, kon waa France gépp eh, teew nañ kon ñoo ngi sant yàlla bu baax ci mbokki taalibe bi nga xam ne ñoom itam dugal nañ ci seenu seenu ñaq ah damay jàpp ne rek ñi ëppaleeg ñii yéex a ñëw ak ñi waaj ñëpp am nañ yéene xanaa rek daal di jamono ji mooy xat léeg waaye ku ñu ku kiiw tayit xay na suba nga góorgóorlu waaye ñoo ngi soññi bokki taalibe bi yëpp di leen xam ne liggéey bi moom liggéey bu leer la bu bu mat taxaw la ndax daa bokk ci yi nga xam ne mënta ñàkk ndax jumaay Seexul Xadiim moom murit bu ne xam na ne bëgg na caa liggéey ndax lam ca wax ku ne xam na ko jëruñ ciy jaaraat li ci kilifa yi soññee it ñu ngi koy dégg waxtu ne kon daal nañ bokk góor góor rek loolu suñ Modou Fall Kébé doon nett euh, doon fàttali rek xam naa dañ gën jaajuwaat gën a wootewaat gën a dajawaat bu ko defee liggéey bi gën a yaatu ndax liggéey dafa bari ca wuute ba tax na euh, ñu ci bari dañuy fàtte waaye waxtu ne rek ñuy gën di dajale di gën di fàttali dana yomba liggéey bi loolu di sant euh, ñi nga xam ne ñooy jàppale sëriñ bi tim ci liggéey bi sëñ Abdoulaye bi si ñoom nga xam ne ñoom it waxtu wu ne ñu ngi wax di leeral euh, di soññee di dem di dikk wax dëgg yàlla ñoom itam ñun ñu ngiy jàppale bu baax ndax. ñun daanaka liñ ciy def mooy soññeente waaye ñoom ñoo yor liggéey bi dëgg-dëgg kon nag noo ngi sant di gërëm bu baax di ñaan yàlla ñu yàgg koo teewee maa ngi jégalu lu baax salaamaaleykum. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di nuyu ñu ñu seetaan ñëpp ak fu ñu mën a nekk. di leen nuyu ci turu Serigne bu Bousso imam mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ci ngeen teew ci jataay bii ngir euh, indi loo xam ne dafay dugg ci liggéey bi te bàyyi ko France di nuyu tamit sëriñ Bousso bi Bousso imam di imaam yi kër sëriñ Touba foofu ci Aulnay ci Paris di rakk ci sëriñ bi moom it mën a seede lu bare bëri ci diggante daayira Muxaddamatul Xidma ak France loolu ab teewaayam am na ci solo euh, sëriñ Assane ñu ngi lay nuyu di nuyu jëwriñ yi nga àndal yëpp. ni ko sëriñ bu soobee waxee léegi sëriñ Modou Fall Kébé mi nga xam ne moo jiite liggéeyub sëriñ Touba bi foofu ci Paris ci ci Aulnay di kër goo xam ne euh, lu amal njariñ yoon wi la ci taxawaay te sëriñ bi nekk fa dafa taxaw taxawaay bu am solo ci wàllu jàngale ak yare ak jiite. di nuyu tamit sëriñ Sidi Diop mi doon wax léegi ci turu euh, La Rosse La Roussillon ak sëriñ Cheikh Diouf. ak sëriñ Ibra Diop di ko yóbbante nuyoo ci sëñ Modou Habib eh, di am mbégte lool ci jataay bi eh, ak kàddu yi nga xam ne yëkkati ngeen ko eh, ni ko sëriñ Assane waxee liggéey bi mën nañoo wax ne benn wet la ci France muy muy muy muy fédération ouest waaye dafay mel ne tamit dafay yóbbaale France gépp ndax daayira bi tamit suñ suñu affaire man na du fàtte mukk it jëf yu rëy yi nga xam ne France yàgg nañ koo jëf ci jumaa ji te muy taxawaay yu rëy rëy yoo xam ne tamit suñ seex suñ seex loolu it fàttewuñ ko ndax bi nga xamee ne euh, fédération euh, France euh, du ñu fàtte ñaari kii trois yooyu ñu jëndoon tamit mu jëm ci margo bi muy liggéey bu rëy auto vidange bi noonu duñ ko fàtte it ak ñaari machines yoo xam ne yu yu yu mag la yoo xam ne day nettoyer karo loolu lépp tamit ñoom sëñ Modou Kara ak ñoom sëñ Xaadim biñ koy biñ koy taxawu ci turut bu ci bu ci taalibee joxe wutoon loolu du mën a am te jàpp naa ne France gépp ci doon participer loolu it jëf ju rëy rëy la joo xam ne fàttewuñ ko mu ngi mi ngi am mi te mi ngi mi autovidage bi mi ngi fi ñu ngi koy jariñoo ba léegi kon dafay mel ne li sëñ Modou Fall Kébé wax léegi rek xëy na ñu doon taxawu loola ñu ci bari xëy na mën naa am nekkatuñ foofu mu ñoom sëñ Modou Kara ak yu demee noonu ak taxawaay ya waroon ak yi nga xam ne dox na fi ci diggante bi ni mu ko leerale waaye jàpp naa ne ba léegi pas-pas bi ak bëgg-bëgg bi ak la fi nekkoon loola tey la raw su fekkee ne ni mu ko waxee waxtaane war nañ ko ñu ñu taxawaat rek euh, jugaat beneen jóg jàpp naa danañ jëf yu raw yi nga xam ne jëfoon nañ ko loolu moom xam nañ ko bu baax du ñu fàtte tamit nuyu waa Toulouse sëñ Mame Penda Ndiaye euh, ak euh, sëñ Cheikh Niang ñoom waaye ak sëñ Pape Ndaw mi nga xam ne moo fa nekkal Moukhaddamatoul Khidma ñoom tamit ñi ngi jëf jëf ju rëy ci forage bi te bu koy def tamit ñoom it France gépp lañ ko àndal ndax ñàkkul fédération bi ak yenn daayira yoo xam ne danañu participer ci liggéey bi kon euh, loolu lépp it ay jëf la yoo xam ne yàgg nañ koo jëf ci ci liggéey bi muy lu am am solo kon euh, ni mu ko waxee euh, sëñ Assane loolu li sëñ Modou Fall Kébé wax mat naa bàyyi xel ndax euh, léeg-léeg soññe bi ci groupe yi ak yu demee noonu léeg teew physiquement loolu da ci da ci da ci mën a ñàkk loolu it xam nga ko ñu xam nañ ko tamit ñun it ndax yenn daayira yi nga xam ne dañ fay dem ngir soññee ak gën a saytu liggéey bi danaa am résultat lool bu wute ak bi nga xam ne duñ fa teew loolu kon mën nañ koo xool ci ban ban temps lay doon ak ban jamono lay doon euh, lu ci am solo la te ci liggéey bi la bokk. su ko defee nag comme ni ko suñu seex waxee léegi liggéey yi nga xam ne mooy liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma yi nekk ci kanam te ñu fàttali woon ko te France tamit dafa déglu woon yooyu rek tax mu jël ci jël ci ay mbir te booba farata la woon muy autovidage bi ak margo bi nga xam ne booba trois yi néewoon na ak machines yi nettoyé. tey jii nag moom bu dee wàllu ndoxum Bàqee mi ñu doon jàmbat forage bi moom incha allah yaakaar naa ne léegi ma noppi kon la cay topp rek mooy oto ndox boo xam ne euh, ni ñu organiser ni ñu setalee jumaa ji ci bis yëpp te pression bi wër jumaa ji robinet yi bariwul doole waaye soxla nañ benn oto boo xam ne barigo yi ñuy taaj yi ñuy taaj ci biir biir miir bi oto boo xam ne day ñëw di leen ko duyal ci guddi gi ngir buñ xëyee ci lañuy ñuy nettoyer karo yi loolu it euh, daayira bi daf koy soxla ak oto mbalit boo xam ne liy liggéeyam mooy di jël mbalit mi nekk ci poubelle yi di ko yóbbu di ko tuuri loolu it bëgg-bëgg la niñ ko fàttale woon tamit ambulance boo xam ne dafay taxaw ci biir jumaa ji ngir léeg-léeg ajjuma ak yu deme noonu su fekkee ne am na koo xam ne doon nañ ko saafara foofu te dañ jàpp ne dañ ko war a jàllale ci saasa mu doon loo xam ne luy disponible la ñu jàllale ko ci saasa ndax xëy na district bi mën naa am seeni ambulance doyul te duñ mën a affecté bët bu set euh, buy taxaw ci jumaa ji ngir lool loolu it bu fekkee daayira bi am na lu mel noonu day gën a yombal district bi ci jumaa ji bu ko amee day gën a yombal mbir yi loolu it bëgg-bëgg la ñu ngi doon fàttali tamit këruk social kër goo xam ne terrain yi nga xam ne daayira bi jënd na ko te amoon xalaat bi bu yàgg te ñu gis ne képp koo xam ne jaaxle nga ak foo mën a jógee ci jumaa ji ngay wut si te bu ñëwee it ci imaam yi rek lay ñëw ñoom si ñaafi ñi bët bu set ay nit di leen dikkal yoo xam ne <laughs> doo xam fu ñuy jógee sëñ bi rek la ñuy dégg yaakaar ko te bu ñëwee jumaa ji rek la ñuy si te bu ñëwee it dañ leen di booleeg benn membre mu yóbbu leen seen kër waaye jàpp naa ne su fekkoon ne am na kër goo xam ne daayira bi daf koo tabax spécial ngir képp koo xam ne dugg nga ci lislaam soo ñëwee ñu man la faa teeru dalal la Euh, jàngal la euh, mu doon këru ndimbal ak doxandeem yi nga xam ne xam nañ ne ñu jub lañ waaye dañoo bëgg dëkk bi ñëw te amuñ fuñ nekk loolu it daf bokk ci ci farata yi ci nga xam ne bëgg-bëgg la. ki noonu tamit euh, lu mel ne centre formation bu mag boo xam ne yàgg nañ koo mébét ba defaroon plan yeeg yëpp nga xam ne li nga xam ne danañuy def léeg-léeg di former jumaa yi ak jàkka yi di leen former ci ay imam ak ay noddukat ak ñi nga xam ne nu ñuy yore jumaa ak nu ñuy yore jàkk rek ak nu ñuy jàngale yooyu daayira bi daf ciy liggéey liggéey bu rëy rëy ci biir koor gi su fekkee tabaxal nañ ko kër goo xam ne nag du yem ci Touba rek jàpp nañ ne kuy taxawu diine ku nekk sëñ bee la war a taxaw moo tax ñu jàpp ne war nañoo am kër gu rëy koo xam ne centre formation lay doon boo xam ne euh, dañ fay former jumaa yi ak jàkka yi ba képp kuy bëgg imaam wala ab noddukat wala ab liqaamkat soo ñëwee da ko fi mën a am yooyu yëpp ay mébét la yoo xam ne eh, mi ngi ci suñ kanam bu ñu koy leeral nii nag dëkk yi nga xam ne ñoom liggéeyal suñ Tuubaa rek la ñuy wër muy fédération yi buñ ko déggee man naa am jëwri ni fédération de ah ñun kat yii nañ ci jël benn def ko ndax lii kat lu farata la kër social gii ngir nga xam ne ñiy dugg ci lislaam tey bëgg dëkk bëgg sëñ bi ñooñu nañ jël kër gi nañ laaj terrain bi ñu tabax ko wala ñi ne kon nañ jënd oto mbalit bi wala ñi ne nañ jënd ambulance bi wala nañ jënd oto ndox bi loolu moo tax ñu koy leeral yiñ am yëpp ci yii lañ ko amee kon nag su fekkee ne France tamit teew nañ fi jaadu na ñu ñu ñu leeral ko niki noonu tamit añi ajjuma yi nga xam ne tàmbali nañ ko daaw mu sosoo Angleterre te lu ma téeméeri nit ak ñeent fi nekk ni versé nañ ci bu nekk quatre-vingt mille loolu nañu leeral bilan bi barki démb rek loolu tamit ñu ciy soññee di ci soññ waa France loolu moom jotewut ak liggéey bi dara waaye ak jaayante la goo xam ne tey quatre-vingt mille soo ko joxee mooy jël nga bisu ajjuma boo xam ne yaay toggal waa jumaa ji li añee muy ñay baleek ñiy jubanti sàppe yeeg ñay def yooyu te fi ne nii dañoom objectif bu bëgg mu doon mille murit yoo xam ne dañuy dañuy dañuy jël ku nekk euh, benn ajjuma loolu nag moom bitim réew ak tuubaak senegal ak ñëpp lañ ci amal ndax liggéey la boo xam ne ku ko def sa bopp nga ko defal ndax sociale la euh, waaye liggéeyal sëñ bi la teyit yaakaar naa bëri na euh, njariñ lool. kon daal ñu ngi tënk kàddu yi foofu di leen sant ci li weesu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy fàttaliku bu baax di ci sant waa France gépp di nuyu tamit seriñ Ahmad Bamba Thiam mi nga xam ne moo jiite fédération bi waaye di soññee tamit ci li ci kanam ngir tamit ñu wuy suñu ci liggéey bi gën ñu cee jàppale ndax jàpp naa ne jumaa ji moom mooy mooy yoon wi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom def tawfeex te may ñu ay jumtuwaay muy wërsëg wu yaatu woo xam ne daal lu ñu bëgg a liggéeyal sëriñ bi man koo liggéey bi barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëñ Abdoulahat Bousso ci kàddu yi kàddu yi nga xam tam sëñ Mamadou Fall Kébé ak sëñ Cheikh Diouf yëkkati nañ ko ak sëñ Sidi ak imaam sëñ Bousso be loolu rek mooy liñ fi jële woon ñu ngi ànd ak tam sëñ Ibrahima Diop mu ngi xam ñoo bokkoon fu nekkoon Eh, moom tam mu jox nu kàddoom nu nu nu cant goo xam ne daal cant nañ ko ñëpp nag rawatina ñi nga xam ne maanaam ñoo doon xëyandoog maa ñoom ci marché ya di gontandoog ñoom duñ fàtte kenn ndax bu ñu limee rek am nu ñu bàyyi. Eh, sëñ Sidi nag dafa wax ne sëñ Blaat bi sëñ Afia di bi ñuy wax eh, daaray sëñ Afia jooju muy muy solaire boobu nga xam ne tudd nañ ko fi moo tax mu ne man man naa naa ko wax moom dafa fas yéene bu eggee ca La Roussillon fàttali ko mbooloo mi ngir ñëpp mën cee jàpp loolu tam moom moom sëñ Sidi mi moo nu ko wax waaw ndax waaw moo tax mu ne naa ko tudd noonu waaw kon nag kàddu yooyu rek lañ doon indi ñu taal sëñ bi def ñaan